في المكان هي في أكبر أريان دي اه السلام عليكم بوك سنغال بوك ديسبورا راوتيني يني ني سيتان سي سان تيليفزيون افريكا 9 تمني نيب دي جار نيب كاين اك نوغي تيرميني 75 بارتيكولييرمان ماليكا نيغي فان نيم تي كير سيني نازير ني باي سيني نازير نيو سون بوك تيليسبيكتاتوري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ñu ngi nuyu mbokki internet yi di nuyu mbokk Sénégal mbokki Afrique mbokki àddina bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp fépp mbokk nekk rek di ñu suivre ci internet bi. waaw bi sëñ euh, Nazir euh, Borom. xuddaam bi borom xuddaam bi bi mu euh, nuyoo ba pare dañuy ñëw ci yi nga xamante ne dañ koy euh, gis euh, mu koy def mu am ci résultat ak kéemtaan yi nga xamante ne mi ngi koy dimbalee jaamu yàlla yi ñu bëgg a xam tuur ci li nga xamante ne sëñ Nazir yaa ngi ciy yëngu mu ci la xamee. waaw alhamdulilah faj moom man damay wax ne képp koo xam ne dangay faj li si njëkk jiitu si ak paj mooy nga am ndigal gannaaw bañ la ko jàngalee. nga nangu ko jàng ñu tarbiye la si ba nga nooy dur mm. nga am si ndigal ñu samp si teg la barab mm. damay wax ne ko képp ku ko amut yow waroo faj mm. te damay wax ne faj bu àndut ak ndigal du barkeel ñun nag lii ñuy def nii dañ cee am ndigal te yàgg naa ko wax dama koy répété waat rek ndigal li ku ñu ko jox mu ngi toog di ñuy déglu di ñu gis heure bu ñu waxee lu ko duhut nañu noppi leen heure bu ñu defee lu ko duhut man nañu see génn te wax naa fi ne lépp lo xamna ne ngi koy def maa ngi koy defee man sama ndigalu sëriñ laqatuuma tëbuwuma tebiwuma sa langat rek di wax nelawuma tamit ba sama yaram sedd guuy ma juk tok rek di wax nit la ko xamne lepp lépp lu may def rek ci ndigal la koy defé te kima jox ndigal mi ngi fi yi ni nga xamne ne mang koy faj nak ma ngi xaar nga laaj ma ci su ko defé ma detaay ci inshallah man bëgg na ñew ci li nga xamantene moy walu yok awra bi gis na ka yi résultat yi ci ciy génnee. Mhm. dama bëgg nga ñëwal ma ci yok awra bi. wa yok awra bi mo mo nekk ni man bay wax ne yok awra kep ku naan amna ak amul ñëwal rek essayé xol mhm. amna ak amul jëre rek essayé xol bu amé di nga xam dara bu amul di nga xam dara ta damay wax ne bi ngay gis ni waa réew mi xam nañ ko bitim réew xam nañ ko kep ko xamna jël nga ko gisoo résultat. Mhm. oo oh, ma delo la sa xaliss bi yi mm-hmm. moom ñi ko ñi ko xam-xam nañ ko ñu ko xamul na xamuñ ko awra boo xam ne dafay dellu tuuti ba mel ne bu xaleel nga yor ñaari soxna wala ñett musiba la ma ne mm-hmm. képp koo xam ne yor nga ñaari soxna yor ñetti soxna moo xam benn la sax nga yor awra boo xam ne dafa tuuti mel ne bu xaleel ñëwal ñu delloo la ko ba sa awra bi mat na waroon a mat lenn nag dana koy def fooye sa bopp muy mballu li ñuy wax mballu dugg si duus bi rek yor sa saabu di xaas-xaasi rek day delloo ah. di xaas-xaasi rek ba daanu te nga am soxna feebar la loolu dañ koy faj mm. ñaari rawxaan daf koy def rab daf koy def beneen bi si des am na si ñoo xam ne ñoom seen awra bi dafa tuuti noonu lañ mel ñooñu tamit bu ñëwee dinañ leen ko yokkal ba mat ba mat li mu doon mm. damay wax na awra moom bii moom képp koo jël sa bos dina gudd dina rëy dina am poids mm. man maa la ko te jigéen joo téye dina xam ne téngoo bii li ma ci waxoon nag laa ci waxaat képp ku ko jël gisoo si résultat ma delloo la sa xaalis. comme ni ma leen koy waxee rek saa su nekk duma ci jóg. Hmm. te duma ma tàyyi di leen ko wax sëñ si li mu wax léegi dama ciy delluwaat ki nga xamante ne dafa takk soxnaam nga war a yegg sa kaw soxna ñu naan mu naan euh, bébé ndax dugg na yàlla ci yàlla musal. Mm. parce que sa ji jigéen xaalis yoratu ko ci jamono biñ toll. Mm. oto bu rafet yoru ko mm. kër yoratu ko. mais jigéen da nga koy dëkkal dëkkoo ko bañ na ko ba lislaam da cee wax. Euh, nga ñëw rek jàppale ci ñi nga xamante ne dañ balaa ñuy seeg seen jabar ñu am jafe-jafe dañ koy xalaat wala ñuy génn ci boîte yi parce que dañuy bëgg suñ ñëwee seen euh, fekk seen soxna nelaw kon jafe-jafe boobu sëñ Nazir nee daf ko génnee ci dëkk bi nee ngeen Euh, ku seetaanul vidéo bi wala ku nekkul en direct heure boo doxee ba euh, gis nga xamante ne euh, xam na sëñ Nazir dama la koy ñaan dawal nga seeti ko parce que dina la dindil gàllankoor bi nga xam ne moo nekkoon ci yow waa ñu jàll ci leneen ndax gis naa yeneen ak yeneen yaa ngi koy ay sëñ Nazir moo efficace de hmm. gis naa ci wàllu nopp sa jëkkër hmm. nopp rek muy góor jigéen bii mi ngi nii topp damay wax ne bii mooy lem bi lem bi Mm. liñ koy defaree na dama koy wax waaye lépp duñ ko leeral lem la ak gere su mbëtt ak baatu turu yàlla yi muy àndat yoo xam ne moom lañ koy mooñaale defar ko ba mu mucc ay mu ngi nii fi mu nekk nii bii boo ko tijjee am na beneen kubéer boo xam ne mi ngi si diggante bi mm. dafa am sécurité li nga koy gis nii am na si ñoo xam ne man maa leen koy defaral di leen ko jox ñi ma siy commandé ay cent pièces deux cent pièces ñii cinquante pièces ma leen koy jox ñu koy jaay ay 50000 fi ak bitim ilaha ku yeen si mëna xam ku koy jaay man may ki kay defar bi damay wax na nag képp ko xam ne jël ci ngoko fi ci man muy goor di jigen nak bu dee la lokotil tuuti rek diw sa awra bi ci kaw rek. billahi li ci sa jëkkër bu la sé wala sa partenaire ku mëna do nak la wax bu la sé bu la yow benen jigen dotu ko safati ilaha pour yow ra yaay jigen ci kaw su bu ku goor la même chose non lay def. aw kii bii ngay gis ni daal nopp bi ngay gis tabaski bii ñu jubli si mën a jeeg ji képp ku ci am nga yor jëkkër ju nay laa wax jëkkër ju nay nga di ko laaj du la jox naa la diggoonu fii génn fii du la daggal jasneer du la jënd mm-hmm. a xar maa li gëj si alxuraan boo ko laalee lu raw lu di nga ko am bii noob la buy xéeme a ngi waaw man dama yéemu ndax nee naa su may dem dinaa ci yóbbaale mais damay ñëw ci téere bi nga xam ne dafa nekk ci jafe-jafe nit ñëpp jigéen ñëpp euh, nit ñaa ngi ciy nax ay nit. Mm. waaye sëñ Nazir nee na gis nañ ci ay résultat ndax ñun ñii di ñëw ci moom moom sax bëggul feeñ. mais ñun ñoo koy forcer ñun waa Africa 9 ñooy bëgg mu génn pour muy ñaax nit ñi. di wane di wane ne moom li nga xamante ni mi ngi ciy naxee nit moom euh, mi ngi ciy joxe résultat macha allah ci wàllu am doom bi. waaw secret am doom bi nag moom mi ngi nii damay wax ne àddina bi fi mu nekk nii miin nañ ko. Mm-hmm. Sekkere am doom bi si béjjënu béy wër leen sëriñ si ba sëriñ si daj du ngeen dégg sëriñ bu wax Sekkere am doom boo xam ne si béjjënu béy lañ koy def mosoo leen ko dégg te te nag du lii rek de am na yeneen yu muy xam ne si suuf yoo xam ne ku xoote ci nga koy door képp koo xam ne jël nga ko moo xam da toog di sëy juróomi at fukki at ñaar fukki at ba vingt cinq ans ba trente ans billaay lycée amoo doom boo ñëwee su ma la ko joxee doo génn si ñetti weer ñetti weer doo ci génn te la ma waxoon nag laay baamtuwaat du ma koy tuxu man fi ma dëkk foofu laay dëkk. Mm-hmm. du ma koy randu bu ngeen ma fekkul dakaar Malika fii terminus 75 maa nga Saalum ñaari bare bii laa am. Mm-hmm. bokkuma sëriñ si sëriñ si nga xam ne tey ñuy tuxu fii ginnaaw suba fële ginnaawaat suba fële. Mm-hmm. fi nga may fekk daay man foofu nga may fekk. képp koo xam ne jël nga ko ñetti weer doo ci génn te jëloo ëmb. boo ci jëloo ëmb amaatal ful la nga ma delloo sa xaalis nii yéen a ngi dégg. la ko wax. ku ko mën a ku koy jéem bokkut de. te nag li gën a doy waar gën a métti tabaski baa ngi ñëw. Mm-hmm. exemple la si li may wax. Mm-hmm. mooy ñëpp sañ ci ànd doom. nga sañ ci yow kese doon cundub. ci gàmmu jot noonu moo cee topp. Mm-hmm. tam xarit noonu moo cee topp. leneen ak leneen ak xew yeeg yëpp ñëpp di xotti seen doom yi yow kese nga wéet loolu naqaru xol. gënu ko fa la yem. naqaru xol fa la yem. doom nag yàlla nit du ko jox boppam yàllaa koy jox nit. waaye ci buntam ñaan yi tey secret ñaan ne ñun yàlla daf ñu see dimbali wax naa léegi nag ñun nekkuñu koy làmb dañoo am ndigal ci li ñuy def képp kuñ ko jox doo génn si ñetti weer yéen ko déggandoo te tam yoon na ci loo xamante ne góor ñi nga xamante ne dañoo am problème mu euh, euh, gaaw a daanu ndax mën na mat hmm. comme li nga wax léegi sa awra mën na mat gudd loolu yem na tolloo na ni nga xamante ne moom la sa soxna bëgg mais balaa ngay àgg ci kawam nga jot sa bopp loolu tam jafe-jafe yu bari la ci biir dëkk bi loo ci wax bii mooy solution bi Mm-hmm. bi lañ wax kubra kubra ponkal mi bi lañ ñuy wax kubra moy ngand mi ponkal ma ngi ni bi damay wax ne kep kuy joxe garabu katan ci sëriñ ci billahi la ci laa ilaaha illaa bu melni fama ko jele sëriñ ci xamuñ ko bi kubra lañ koy wax ta nak wax naa ko legi dama leen koy waxat mm-hmm. ki limi fajj faj yi muy nit 78 mala maladie da koy faj yëmura ci katan de te murit estomac ballottement li muy faja bari lii te secret bi li tax mu yéeme mooy ndiggal yaxul gëlëm te gëlëm képp ku nekk si ñun xam nañ ne mala yi dàq sëy si la bokk ndiggal yaxul gëlëm secret ba fa lañ koy jëlee ak yi nga xamante ni am na si réew mi fii ñu boolente ak moom may wax ne mm. képp koy jël tey gaaw daanu sa awara bi mat ngay gaaw daanu billaay li ci boo ko doon jël di def 10 minute di nga def 20 minutes ku koy doon jël di def 15 minutes di ko def 30. lépp loo daan def dama koy doublé man. laa ilaahi dama koy doublé. yéen a ngi dégg lii ngi nii. Mm. te nag neex naay jël amul problème lem rek nga koy booleel ma wax la noo koy defee. jigéen joo téye mu xam lem sax day faj. jigéen joo téye mu xam ne jë góor téye na ko kii moo xamul werante. moom daal jëlul loo xamante ne day def effet secondaire. kii mooy garab gu mag kii mooy garab gu mag gi moo nekk mm-hmm. nii. Mm-hmm. waaw li ngay wax léegi soxna si mooy effet secondaire moo amu si. amu ci yàgg naa kaaw man lépp lu may liggéey si réew mi jëggaani góoma de. Mm-hmm. bés bu ma jëggaani daan la lee dama koo jëggaani waaye lii moom si réew mi la ne. fa koy defaree. waaye sëñ Nazir ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne suñ ko fi naree lim. dañ foog naa fi la ñuy fanaan. mais itam ki nga xamante ne dafa soxla côté seet. côté wàllu faj. côté wàll mu dëgër la ay mbiram. mu jafe lool. mu bëgg a nga jàppale ko ci. parce que def ko lu bon yaa ngi fi. nga gis nit ki nga xam ne dafa débrouillé ba am place am. nga gis ko fa sotti toj nen. yàqal ko lan ngay wax ci ñooñu. waaw damay wax ne seet moom. Wakon naa ko fi sa diggante modulo ak Boy nya waxoon naa ko sa modulo ak Ama Balde wax ci wax jo xamne dara du ko dindi. Mm-hmm. ba ma leen seetalee seetu en direct la la defee fi ci mm-hmm. chaîne bu mag bi di Africa 9. Mm-hmm. ba ma ko seetee dama ne modulo Lo dina ko daan Modou Lo daan ko jël bu reuy ma waxat ko encore mu defaat ko damay wax ne Afrique waxuma adina bi ndax ñi dakk Afrique la ñe Afrique la gisuma ko mako fi dakk te bu la ba la say wax la ba billaay li si laay laay laaw mën ngay toog ay weer doo seetloo te xanaa ngay tukki wala ngay dugg si jabar wala ngay dugg si jëkkër wala nga bëgg dugg si place ñi nga xamante nii nag dañoo nekk nag nekk ñoo xamante ni dañoo day waar nit ñi yor seen place. Mm-hmm. ñu leen yàqal nit ñi yor seen place ñu leen di tojal ay nen di leen defal liggéey mm-hmm. ñooñu maa ay si ñoom. billaay li si fii ma toog nii mm-hmm. képp ku ma seet ñu lay yàqal wala loo xam mu yàq wala loo xamoon muy dellu ginnaaw. boo ma seetee ma samp la yëkkati la. da ko sonal su amee euh, borom kër. mu tas. wala sax borom kër ga dellu décédé. Euh, ku am ki nga xamante ne tamit day daanu rek. lan nga wax ci ñooñu. waaw damay damay wax ne mbirum rab. Mm-hmm. dégg naa fi sëriñ soo xam ne ñuy wax naan ñuy wax ne dañoo am jinne amul jinne may wax ne lépp lu nit amut naka booleeg salam amut ndax nit mënut a dajal lépp di. Mm-hmm. lu nit xamut na nga booleeg sa lam xamut ndax nit mun nit mënut a xam lépp. Mm-hmm. loo gisut boolekaal sa la nga gisul ndax nit mun a gis lépp. waay. yii dama koy faral di wax ku ñu am xel nag laay waxat jinne damay wax ne du dara ñu te gën a foor loo gisee àddina. Mm-hmm. nit moom la yàlla jox amaanatu gi. kóllëre gi moom la ko yàlla jox nit. mu yilif jinne yilif lépp ci kaw suuf. yilif ba yilif melentaan yi. yonentu yàlla Suleymaan dafa yilifoon ba yilif xorondog yi yilif jinne jinne yaa ko tiim wër ko di ko garde yontu yàlla Suleymaan dee na bu yàgg taxamul ana jinne jinne day dara ñun man sekk laa sant dama koy faral di wax lu bari damaa xami jinne man te damay wax na rab képp koo xam ne dugg na la ma génn ko si ñetti fan billaahi barke Cheikh Oudia ñetti fan si laa koy liggéey génn ko si yow ba mu set wecc ñetti fan ku weddi nag ñëwal te ki nga xamante ni dafa dof ba dopporo ñu takk ko bu ñëwee fii ma faj ñu yeewee ko mu dox dem. tekkil ñu faj ko bàyyi ko mu dem. mu bilaay bilaay lisee barke alxuraan. loo mënut munoo ko loo xamul xamoo ko loo gisul gisoo ko. Mm-hmm. bul na amut bul na xawma ko bul na gisuñ ko. Mm-hmm. bul na amut. ñu di ko fekk Malika ah. ci terminus 75 bi. Mm-hmm. nee na su nekkul Malika rek mi ngi saatum. loolu mooy ñaari bërëbam ñi nga xamante ne fa lay nekk. muy sëñ Nazir waaw damaa bëgg nag suñ jógee ci yooyu. ñu dugg ci actualité bi. actualité. bala ngaa dug si actualité nga may ma ma wax ci sama jarbaade ak sama doomi acca li nga la léegi muy mbirum hmm ñu ci bari ñi ngi ñi ngi ñi ngi tok set lu yàgg bëgg jëkëta mënuñ ko am. ndeysaan ñu ci bari rap mo leen laax mm-hmm. ku leen set si ba yaakar am wala ñu japp bëss mu delu gina gis na ko. ñu mm-hmm. bari nañ ñëw fi dama ko tawat. ma ngi si am secret bo xam ci jaaru la koy liggéey mi ni secret bo ci jaaru la koy liggéey. billahi li ci kep kuñ ko defal kep kuñ ko liggéey jox lako nga takko damay wax ne doo génn ci fukki fan ak ñett treize jours treize jours doo ci génn góor ñi am njariñ dinañ la wëree côté bu nekk yaa xool ko cay tànn. dégg ngeen lii. ñi tëlee am jëkkër loo di xaar. ñi tëlee am jëkkër. Mm-hmm. ak ñi nga xamante dañoo bëgg jabar ñoom it. Mm-hmm. fu ñu dem ñu dàq leen nañ ñëw rek jël jaaro yi. toog xaar ku ko ci jël doo génn ci fukki fan ak ñett di nga gis li nga bëgg yaay tànn yow. maanaam lépp loo ko fay moom dafa wóor dafa dëgg ci muy def te nee na ci ndigal sëriñam la ko teg kon du boole lenn loo xamante ne bokkul ci li nga xam ne moom la ko sëriñam euh, jàngal ba pare jox ko ci ndigal du ko def nee na euh, mu fàttali leen di leen ko wax chaque jour ki nga xamante ne euh, neel gisaguma wala xamaguma mais amut bu leen ko wax ndax am na ñi nga xamante ne mhm. dund nañ ko te mu ngi koy dindi mhm. te am na ñu ci jëflanteel mhm. parce que am na ñu ko ñi nga xamante ne xam nañ ko ci loolu kon sama mbokk célibataire yi lan ngeen di xaar parce que des fois da nekk ci kër sax goo xamante ne euh, da doon say sa euh, yaay wàññeeku nga nekk faak sa wujju yaay mu téye la tëj la liggéey la ba yow euh, jëkkër du la wax salaamaaleykum bëgg ay doomam dem bala ci kër gi loolu metti na sëñ Nazir nag nee na soo ñëwee dina la sot la ndax sa waajur neewu fi dina la jàppale ba nga dugg ci néegu sëy bi nga xamante xamante ne nag moo gën ci yow mm. parce que sëy yomb na mais bu baax bi moo jafe mm. mais sañ Nazir neen dalay xoolal mm. wan la fan ngay tànnee ak fooy teg sa tànk mm-hmm, ñu def noonu sañ Nazir waaw actualité bi ma laaj léegi mm-hmm. ci ban actualité nga ma laaj Sonko laay wax Ousmane Sonko wala wala wala président Diomaye ñoom ñaar ñëpp parce que premier ministre waaw lim digee woon mm-hmm. parce que moom moo génn doon diggee. Mhm. moom la nit ñi ut si woon. waaw moom moo ne jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay. waaw kon moom la ñuy adressé parole direct xale yi nga xam ne joxoon nañ ko yaakaar. Mhm. ñi nga xam ne dañoo dëkk fa sori. Mhm. at ba at la ñuy gisanteeg seeni i waajur. Nazir seen yaakaar tas na. dëkk bi jaxasoo na. maire bi lan la ci wax. waaw li may wax si loolu si actualité bii nga xamante ni président jomaay man laay wax moo ñu jiite ñu ñëpp mooy seen président. man damay tëb ñëpp ñëw si président Diomaye mm-hmm. ndax mooy njiit li nag moom la fi yàlla teg dañ koy nangu waaye li nga xamante ni gis naa nag fan yi ñu di ko def surtout nag suñ mairie bi mm-hmm. mairie Kër Massar bii billaay mairie Kër Massar bii ni muy doxalee ma ne dama ne duur ko de mm-hmm. duur noonu waaye nag si benn côté ànd ak naa ñoom si beneen côté si beneen côté bi ànduma ak ñoom ndax nit su fekkee ne dafa lal ci wetu tali bi ba xamante ni nit ñi duñ mën a romb dem ak ñëw wala oto yi da am problème am nañ droit yëkkati leen waaye da leen da leen di jox délai. Mm-hmm. nit da koy jox délai doo ñëw rek nag ko doo ñëw rek maam ñànd ko rek yëkkati ko yóbbu. te xamoo foo koy teg. te nag xale yii ñuy yëkkati nii ñoo leen faloon de na leer. billaay xale yee leen faloon. te nag xale yii nag lii ñu leen di def nii neexul kenn. man moom man moom maay ki leen di waxal. Mm-hmm. neexul kenn ma ne. boo leen yëkkati da nga leen wax ne leen barab sàngam lañ leen jëmee ah, wala delet sàngam dinañ ñëw yëkkati leen kenn bañu lool kenn bañu defar kenn bañu yaatal mm-hmm. waaye nag nañ leen wax fan lañ leen di teg nañ leen wax fi te tabaski bii di ñëw xale yaakaaruñ dara dara dara lu dul ci wetu tali bi jaay pour am dara liggéey pour am dara léegi nag ñu ñëw pour bëgg leen yëkkati noonu rek te am na ñoo xam ne dinañ toog six mois wala un an duñ seen seen dëkk bàyyi seen dëkk papa yi bëgg talañ am xar baale ko fi ñu ko yaakaar lu ci wettali bi nga ñëw ne leen doññet foo leen yóbbu mm-hmm. yàqal nga leen àq boobu fan nga ko jëme nañ defaat nànk te xool yëf yi nañ def nànk-nànk mm-hmm. liggéey bi ëpp na loolu mm-hmm. liggéey bi du loolu de liggéey bi loolu dafa tuuti ëpp na loolu nañ wax si gë gën a war a jar a wax dëgg-dëgg nañ si jublu te bàyyi xale yi ñu daan seen doole ñu wax leen fan lañ leen di teg ak jox leen avertissement waaye ni ma gis ñu yëkkate xale yi nii fii Kër Massar man dee xaw ma ku métti waaye man métti na ma ndax xale yi xam naa ne dañuy góorgóor te xale yi ñu yëkkati nii ñuy tax taxawaale ko sonn ñoo leen faloon démb de. Mm. nañ bàyyi xel si loolu. Mm. réew mi réew mi métti na bañ leen fal métti waaye moo taxaw ñu fal leen waaye fi mu nekk nii dafa gën a métti. billaay te dafa waroon a changé nag ndax yéen a fi diggee woon ne di ngeen def lii di ngeen def lii di def lii la ngeen waxoon yëpp nag. damaa bëgg ngeen duutaat seen loxo te fas yéene taxaw ci pour liggéey. Mhm. liggéey gu leen de. maanaam su ma déggi moom defagu leen ko. su ma déggee sa wax maanaam euh, na nañ bàyyi xale yi. ñu liggéey bañ am fuñ leen teg. Mhm. mbala ñu ne leen délai sangam. Mhm. Euh, dinañ leen fi jëlee mm-hmm. mais ba tey suñ leen fa jëlee mm-hmm. te xale yi amuñu fuñ jëm parce que tey euh, sëñ Nazir nit ku nekk ñaan nga yàlla am place mm-hmm. mu am clim am ventilo mais ñëpp la seen loxo joto seen ginnaaw am ñoo xam damay ñëw ci yow exemple jël sa bagage daw di ko jaayiwaat pour mën cee am lu ma yónnee sama yaay loxo matut euh, doole matut kon ndax yow sa wax dafa mel ni da nga d'accord ci loolu wala déedéet man xale yi liñ leen yëkkati d'accord ma si duma ci ma sa ndax man xale yi lii ñu nekk nii xam naa ko de. kon nguur gi li mu def tam du yoon. nguur gi damay wax ne ni ñu yëkkatee xale yi du yoon loolu moom na leer ni ñu yëkkatee xale yi du yoon. nit boo koy yëkkati da koy avertir. Mm-hmm. d' ba pare waaye doo ñëw rek yëkkati ko. suñ ko avertiré tam ba délai bi ñëw. suñ leen avertiré est ce ñu pare. suñ leen avertiré ba délai bi ñëw pare wuñ bu boobaa ñu yëkkati leen ndax ñoom boobaa ñoo tooñ. est ce que ñooñu dinañ am fuñ jëm. bu ñu wuti ju ko ndax jox nañ leen délai ndax nguur nag bu bëggee liggéey nii rek laa lay wax waaye dama ne réew mi li koy doxal dëgg du yii nii gars yi di wax. Hmm. xam nga réew mi la moo koy doxal te gars yi dañ koo xeeb yaakaar ne duur ko mooy mbay nañ delluwaat si tool yi. Hmm. ñun ñii di wax ak yow nii ñun président ñun ñii di wax ak yow nii dañoo am ay hectares suñu dëkk maam yi ay hectares la ñu am Saloum. Hmm. bayee ngoonse ak téye fas téye téye machine bi muy dem yooyu dafa war a xew yi. ak hilléer ak lépp dafa war a xew fi mu nekk nii ay tracteur lañ soxla ngeen jox ñu ko bii ñu ko mënut a jox ngeen lebal ñu ko ñu fay ko Mm-hmm. di bàyyiloo taalibe yi di bàyyiloo ñëpp kaso gii bu boobaa ñi say dugg dina wàññeeku kaso gii bu boobaa taalib bi ñu si ëpp ay taalibi la boobaa dinañ ne mën a yóbbu si xàll ba ñu mën a bay mën a mën a dimbali seen waajur yi mm-hmm. dama ne réew mi li koy développé mooy mbay président Diomaye yow baykat nga nañ sa gàtt mbay mi Sonko nañ sa gàtt mbay mi premier ministre na ànd ak ci loolu waaye xale yi ñu yëkkati lu mu métti la man Sonko waxoon na ko waxoon na ne ah. su ñëwee mbay mi lay njëkk euh, xool parce que moo ëpp avantage ci ah. sénégalais sénégalais euh, euh, autant pour moi mais yow mm-hmm. man daal sama déggee say wax nañ leen jox délai mm-hmm. après nañ leen fi jëlee mm-hmm. mais tamit nee nañu soo ma woowee ba ma ñëw nga dama bàyyi li may def daa fekk nga teg ma ci leneen waaw tu dëgg mais soo ma génnee ci li ma def dama fal la ba pare te yow tam jéemoo maa dimbali ma am dara day metti xale yi ñoo leen fal nañ leen orienté teg leen barab. Hmm. xëy ndaw yi du ñëpp nga mën a jox xëy léegi moom lan la ci ana maire bi. du ñëpp nga mën a jox xëy maire bi si état bi rek la bokk ndigal li liñ koy jox moom fii la dëkk. xam na woon. te nag te nag li ma bëggoon a wax nag mi ngi noonu Ousmane Sonko laay wax man bi yoon. direct. mbooloo fépp fu mu mas dem taxaw mbooloo wuyu si ko. xam mu sa am mbooloo mu ëpp doole Kër Massar kere bu fi ñëwee hmm. te xale ya ko faloon ñoom li ñu yëkkati tey nañ ko laal li ñuy def xale ya leen faloon ñoom li ñu yëkkati tey nañ nañ bàyyi loo ñuy def te xoolaat xale yi te yërëm leen xale yi seen lépp lu ñuy xam seen waajur yi tax ñu koy def ñoom ñoo nañ bàyyi xel ci loolu ñoom ñoo bàyyi woon seen waajur yi bàyyi lépp de mm-hmm. topp Ousmane Sonko mm-hmm. ci bépp xeex bi ñu doon xeex ñoom ñoo ci ñàkkoon seen bakkan ñoo ci doon gaañu mm-hmm. kon Sonko ñi ngi lay adressé wu parole ndaw yëpp a ngi wax ak yow nee nañ nga bàyyi leen xel te dañoo bàyyi ay waajur toog nañ ay at gisuñ seen waajur dañoo war a dem yëkkati nga leen te amoo leen foo leen teg jàppale leen sëñ Nazir damay dellu si euh, damay tënk rek parce que daa mel ni waxtu bi def ñoo xooj euh, te xam nga suñ fiy wax say kilaama moom defe naa fii la ñuy mais ci diggante Balla Gaye wa ya may lacc lamb lamb nak mom mom mom yalla dafa def man xamna ci si dara man damay chiffre lamb mhm. xam nga doomu adama yi kenn ku ci nek dafa am loy chiffre waye man mhm. lamb man man sama sport la man mhm. man dama koy chiffre man damay wax ne Balla gay waxon nako fi Balla gay ak Tapha buñ fogané la amone moy amat Balla gay ak Tapha yow nga jakarlo so moromu gor dan ko jël bu kenn du mim ngay delu si waat loxo mu ñew war ko jël na la leer combat yow day metti Tapha Tine bu defee tuuti effort daan Balla jël bu kenn du mii moom. nga ne ma ndax sa morom góor rek la da def effort daan ko am nga doole mën nga bëree am nga fit mën nga xeex entraîné nga ba toll noo xamante ni macha allah ñëwal wane sa bopp dëggal sa bopp. loolu rek daa foo far de. déedéet faruma fenn. am na foo far faruma fenn. lu tax nga ne. faruma fenn foo ko teg foo ko teg sport laa yor c'est sama xel. waa léegi yow sa ka. sport laa ma fu mu toll ñoom ñaar ko war a daan. ñoom ñaar na du ma ne la kii mooy daan du ma ne la kaa mooy daan. waye ci cadre sport mom dina wax man lima ci xam waye ci cadre ki moy daan wala kel moy daan mom koku mo duma ko wax ci ci ci li ma ci ci balak tafati waaw Ama balla ak Gris mm-hmm. Ama Baldé ak Gris Bordeaux ci dama ci waxat ñepp dañu fawna Ama Baldé day ñëw rek jàpp Gris talañ ko teg ko fële du non de mm-hmm. du yombee non de Gris Bordeaux na xéta loxo bi day dem hmm ya may xéx man na bëree Mm-hmm. nañ bàyyi xel si loolu mën na bëri damay wax ni giri catam lenn rek la te bu ci bàyyi bàyyee xel rek daan Ama Baldé jël bu rëy muy gaaw rëpp rëpp moom bu ngay def rek Ama Baldé mën na koo lem jéggi ko waaye su taxawee dëggal boppam taxaw jàkkaarloo Ama Baldé xeex corps mooy moom la amu ci loolu ci ka ah. amu ci waaye nag bu jaxasoo amee jàppante am Ama Baldé mën na bëre mën a bëre goo xam ne action boo lalli bu mu def boo ko lalli mu teg beneen mm. action sur action moom lay def mm-hmm. loolu nañ ci bàyyi xel man nag damaa xam làmb di ci wax sama xalaat nag ci làmb laa sama li nga xamante ni si wàllu sport. Mm-hmm. Mm. Euh, kon euh, dañuy kay. Euh, ñu delluwaat ci làmb bi. Mm. kii guy gi Arafat. guy gi guy gi Arafat si ci si ci côté mystique. mystique bi waa. nga ma laaj. Mm-hmm. guy gi Arafat de soo ma ne ci côté mystique de man dama naan ci côté mystique si guy gi la ëppee li ma gis man ci guy gi la ëppee. beneen bi si des na ñu bëri ñu naan Ada Fass day ñëw rek lem guy gi jàll guy gi du ñeexam ñebeem kenn de foog naa ko guy gi du ñeexam ñebeem kenn de ma wax la benn affaire daf leen di njëkk si làmb ji de waaye li mu leen magee bëriwut de guy gi li magee gaa yi bëriwut de daf leen di njëkk si làmb te guy gi borom jom la na xam loolu Ada Fass am na làmb moom waaye guy gi nag na xam ne ku xam jom moom lay dajet te ku waa Fass yaakaar moom tamit moom lay dajet làmb ju doy waar a noonu kon mënoo ñu ci wax kuy daan tamit kii daan moom du wax boobu moom da ngeen ma koy jéggal rek waaw loolu laa ci mën a wax. Euh, ñuy wax ci li nga xamante ne muy treize euh, euh, convocation bi nga xamante ne daf ko yóbbul kii. Cheikh Bara waaw mhm. loo ci wax. waaw Thérèse Faye ak Bara Ndiaye. mi nga xamante ni tey ñoom ñooy actualité yaakaar naa bi gën a fës sax jamono jii. Mhm. muy Thérèse Faye Bara Ndiaye am lu wax si Thérèse Faye Thérèse Faye nag dem porte plainte ñu convoqué ko. Mhm. preuve na indi ay preuve rek teg. du def na daf ne qul aatu buraanukum in kuntum saadiqin li ngeen wax bu dee dëgg la indi leen seeni seeni seen i preuve indi leen seen tegtal ay dalil bu dee li muy wax ci Thérèse Faye dëgg la na indi ay dalil te damay wax ne nag Baari Ndiaye ci état la bokk fi mu nekk nii waaye nag xam ne état nag yoon la fi nekkal bokk si état taxul nga song ku la neex wax loo neex de song ku la neex wax loo neex duur ko Bassirou Diomaye Faye mii toogee fu noonu même boo bokkee si kéem boo waxee nit ku lu ko duwut dinañ la woo càmbar la bu ko doonee dañ lay tëj ma ne mm-hmm. nit ki lépp loo kaa na fekk na doon na doon leer mm-hmm. waaye bul tëb rek di wax si nit ki loo xam ne leeru la mm-hmm. nguur gi demeewul noonu ma ne fale wuñ leen noonu de te ñoom xam nañ ko yoon nag moom ñëpp la fi nekkal mm. li nga xam ne nag moom laa bëgg a tëjee nag mooy daj dëpp gi muy Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Ibrahima ñas baayam nga xam ne moom mooy cheikhul yi moom la waa Égypte tuddee woon cheikhul islam moom la waa àddina bi yëpp mode islamique tuddee woon cheikhul islam xam nga la mooy cheikhul islam mooy ki ngànk diine ji kooku mooy bàyyam te moom it cheikhul islam la si jamono jii mm. ndax xam-xamam ndax jamono ji Afrique ki ëpp xam-xam ki njiital ñi ëpp xam-xam si ki njiital kenn ki jiitu sénégalais la Cheikh Mouhamadoul Mahi la bët bu set na xale yaa ngi koy saaga damay wax ne politique jarul ñuy saaga suñ mag ñi jaru ñuy saaga suñu bàyyi jaru ñuy saaga suñu maam yi jaru ñuy saaga suñu ndey surtout ndax politiciens yii seen bopp lañ fi nekkal nañ def nànk te jox cër suñu xalifa yi jox cër suñu bàyyi jox cër suñu ndey te bàyyi ñu ne saaga Cheikh Mahamadul Maaye mi ñuy saaga dafa sedd rek nooy ba xamante ni lu waay wax rek amul problème mm-hmm. damay wax ne loolu nag dafa war a dañ maa ngi interpellé jomaa Diomaye Faye laa interpellé direct ak premier ministre Ousmane Sonko nañ fi dindi lii nañ ko fi dindi saaga yi ñuy saaga xalifa diine yi damay wax ne jëmalul réew mi kanam da koy delloo ginnaaw nit koo xam ne deful la waxul la di wax rek nga di ko saaga bërki démb la wax ci ci ci Bah wax si Bah Diakhaté rek maa ngi koy ñaana maa ngi koy ñaan maa ngi ñaanal sama xarit Bah Diakhaté am na saaga wala réew mi léegi nekkutul réew mi démocratie amul droit wax lu ko neex moom amul droit wax lu ko neex te moom na wax lu ko neex saaga bokku si xase bokku si mm-hmm. ñun kay ñooy saaga ka xase nañ bàyyi saaga yi xase réew mi ma ne daf koy delloo ginnaaw te Bassirou Diomaye Faye nag buñ xoolan ci président bi Bassirou fay Faye mi kat yi dinañ leen seen geen toog ci ndax moom ku sedd la ku lewel la ku baax la nañ bàyyi saaga yi te ku am yar la mm. président bi jàngal nañu mm-hmm. Cheikh Mouhamadou Mahi jàngal nañ nañ bàyyi saaga yi jëmalu réew mi kanam te nag maay wax ne ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi koy dut baaraam di ko saaga mm-hmm. billaahi la si laa ilaaha illaa boo ko baxut dinañ rëq sa ndigg si zahir ak si